yëg-yëgu sant yàlla rekk ndax looy def yàlla may la nga fekke ko yàlla suturaal la nga ñëw boo ko kook say nawle te am ñoo xam ne boo ko ak ñoom daaw ci ñëw ñu ren kon dañuy sant yàlla di sant nag di am mbégte di topp ci gannaaw imam aadi ndax imam la boo xam ne moom matale na Euh, te koo xam ne la aussi quartier bi teg nañ ko fu kawe kawe kawe ndax ku déglu xutbaam bi xam ne kilifa la xam ne imaam la kon loolu ñun dañ ciy am mbégte di ko ñaanal yàlla sunu borom bi yàlla guddal fanam wérali cëram yàlla yokk ko sutura defal ko jàmm euh, boo gisee tey jii di fi xew nii mu pare suñuy mbokk chrétien ñëw taxaw téeru ko sagal ko tegal ko nga xam ne kon imaam matale na ndax loolu du ñëpp ko am de kon loolu ñun dañ koy sant yàlla bu nu amee imam bu mel nii dañ koy bége euh, yow it Mamadou ñu ngi lay bége ndax lii nga ñuy defal ñu xeebuñu ko ndax boo nu ko deful woon dañ koy wuti wala duñ ko am kon bu nu ñëwee am lu mel nii nga ñëw taxaw wone ne man fii laa bokk ci kër gi laa bokk ci jumaa ji laa bokk taxawee ñu nii ñu ni dañ lay sànq di la gërëm di ñaan yàlla sunu borom bi mu gën a dëgëraat sa taxawaay jërë ngeen jëf président merci waaye yéen nag kaay leen fi ñu jënd daal.